ausubillahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi jàkkaarlu ñu te seetaan moo xam ci biir réew mi ak bitim réew ñoo ngi amati mbégte kontaante bu yaatu dikkati ci seen jotaayu am solo yi nga xamante ni baaxoo nañ koo ànd ak yéen di seet ci ñenn ñi nga xamante ni seen taxawaay ci askan wi ak jur gi xettali askan wi ca kenn ku ne xam ne ni jamono jii jafe-jafe yi bari na moo xam ñi nga xamante ni dañoo am jafe-jafe ci wàllu wërgu yaram ba tey ñi ngi ci dali l'hôpital am ñoo xamante ni sax ñimiwuñoo dem ci yi ndax garab yi bu mu ak hôpitaux yi faj mi metti bu mu metti waaye ñoom suñu borom may leen baatin may leen xam-xam ci wàllu faj may leen itam taxawaay ci jigéen guñ sigee seen seen borom ba nga xam suñu ñaanee suñu borom subhanahu wa taala seen borom nangu moo nak. ñu ñëw seet si kenn koo xamante ni ni xanii ani taarif la mu di Serigne Abdul Xuddus Seen borom firi gént man ci ñëpp sëriñ Abdul Xuddus Seen borom ijaaba jigéen suñ borom ba su ñaanee suñu borom nungu ci kàttanu suñu subhanahu wa taala Serigne Abdul Xuddus Seen borom allah kulli xaal allah kulli xaal nag di baat boo xamante ni daf koy utiliser di ko jëfandikoo ndax lépp lum ñaan suñu borom daf ko cay fekk moom Serigne Abdul Xuddus Seen moomu moom la ñu si fii tey ci Géejawaay. pharmacie PAI jakarlo biros doré bi ngeen mëna jokko ak mom ci numéro téléphone yi le 78 443 75 27 di ko xamanteni firi gento mo ci man wax nako digëna suñu borom ba su ñaané suñu borom nangu ko waye su dé ci walu hémorroïde mo ci man su dé ndoxu city mo ci man lepp li nga xamanteni new carton ak jigen ju taxaw serigne abdou khodous mo ci man kon nak dañ koy jox kaddu gi mu nuyo ndax fessel ko feñal ko da bok ci jaamu yalla ndax nit a ngi ci ruq boo xamante ni tey daa bëggoon a am na jafe-jafe yu mitti yu muy jànkonteel waaye ñiy gàmm ak ñiy raas dem bokkuñu ca ñëpp jóg nañ nag suñ jógee kenn ku ci nekk nag doo xam ana waaja ca su fekkee nag da xool saa su la waay waay rombee nga ne du waaja coon sekk waxoon na la waaja dana romb ca doo xam ni waajaa kon waajaa ngi nii sëriñ Abdou Khoudous borom ijaaba asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi alhamdulillah ala kulli hal. Eh, serigne Moussa ñu ngi lay nuyu baax di la ziar. Mm-hmm. Eh, di la ñaanal bah bah. baax baax eh, di rafetlu seen teway ci jotaay bi di sant yalla bu baax ginaa bi ñu boole ba ngeen ñew daral ñu jotaay pour ñu fassiyene yéene waxtaan. Mm-hmm. ndax da am lo xamni bu nekk ci nit ki te fasalu ko rek. mën naa bañ am mm-hmm. kon bu leen yalla defalee tawféex ba ñew fassiyene pur pour lo xamni mën jariñ nit ñi. ndax dafa dañuy wax ne am na tawar yoo xam ne hôpital moo koy faj. moo koy faj. du hôpital moo koy faj. du hôpital moo koy faj. a koy koy faj. ndax ku jàpp moom doo dem hôpital ñu naan catama jàpp dañ war a faj. ko faj. da ngay dem ci may mu ñaanal la teg la ci yoon cet gi dañ. rocc ko ni dégg. kuñ liggéey hôpital du moo koy faj. déedéet. hôpital yaakaar yaakaar mu dañuy joxe comprimé boo xam ne bu ne liggéey boo ko naanee liggéey bu toj. Mm-hmm. xëy na xamaguma ko de xëy na mën na nekk ne waaye dafa am yoo xam ne yàlla moo koy booleeg ay nit kon secret la bo xam ci alxuraan la nek mhm. mor kon bu ngeen ñewé dalal ñu pour ñu waxtaan ñu léral xam-xam. dal ñu ci sante bu baax di sante yalla bu baax lépp lu ñu wax tammi ñariñ yalla lañ ko jariño lepp lu ci joom nak nañ xam ne doomu adama la. alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jerejeuf serigne Abdou euh su fekke deg nañ ni nga waxe amna lo xamanteni hôpital mënu ko faj waye amna lo xamanteni hôpital mënu ci dara. Mhm. ñi tey jaam suñu borom suñu borom nungu ko. Mm. nungul ko ànd ak moom ci ay càkkutéefam su ñaanee mu jigee ko lool nangu ko ñaan boogee loola moom moo koy faj. Mm-hmm. mu mel ni suñu borom dala cee boole boo boobaak léegi nag ñu la koy topp. Mm-hmm. mel ni nunguloo ñu ko woon ndax bëggu na toog sa ruq rek. Mm-hmm. di def li ngay def. waaye nag nit ñu koy sàkku itam ci yow ku fi ñëw indi keneen keneen ñëw indi keneen ba mu xaw a bari. moo tax nag ñu ni kon nag lii. demande sociale la. ngir nga génn wax ak askan wi. fii ñu njëkkee rek mooy euh, ñaan. lan mooy ñaan. ak sarti ñaan. ak itam ñaan lan la ci doomu aadama ak lan moo la ci suuf sax yow. waaw alaa xaal ñu sëñ Moussa ci laaj bu am solo bi euh, muy li ñuy wax ñaan yàlla muy ad-du'a du'a nag ba ci julli sax ñaan la. Mm-hmm. ndax da am loo bëgg. pour yàlla defal la ko. Mm-hmm. loolu nag da ngay jaar ci ab yoon. bi ci desaat tamit. Mm-hmm. Eh, ñaan mën na dundal dimbali kuy dund mën na dimbali dimbali kii faatu. ku faatu. ndax suñu tubaab ma ko isil doon yan faaxul may wayen xool xay wayu jul ujóor. Mm-hmm. ñaan day jariñ ki dund njariñ ki faatu. day xëcc ay may. Eh, waaw day xëcc ay may. Uh-huh. ndax saa soo dee ñaan yàlla yàlla di la may. ngay dimbaliwaate nit ñi dañuy gën a bëri ci yow. kon loolu it dina eh, dimbali ba tax. li ngay ñaan mëna soti euh ñaan nak man na lu bari ndax nit mëna nek euh, euh, ci ay xat-xat nga ñaanal ko yalla ba tax ñaan gi soppi ay mbiram benen bi ci topa tamit nit ki mëna nek ci ay xat-xat nga ñaanal ko yalla ba yalla soppi ay mbiram amaa mbir yi xam-xam la yo xam dañ koo gëstu ba yalla dogal ci ay nit ban am ci luñ ci yàlla dénk. Mm-hmm. donte amoon na yéen yitte yu nekkoon yéen xam ngeen ko. Mm-hmm. xam nañ ko waaye nag nit ku ci nekk loo def ijtihaad yàlla may la ci tawfiix. may ndax yàlla li mu yor da koy jaay képp ku jaar yoon bi mu koy mayee mën nga am li mu bëgg. Mm-hmm. loolu it day tax ba nit ki xam ne lii kat nekkoon naa ci mën naa am leen lu lu goo xam ne mën naa ci dimbale ay nit. ñu soobu ci di ci jàppale ay nit te ñu ngi ciy dimbale ay nit nag ndax yàlla ñuy boole ay nit ñoo xam ne. lañ doon sàkk bu lépp sottiwu tamit lenn li mën naa sotti. ndax mënoon da ngay ñaan yàlla far force ku ñëw aajoom faju 100 pour cent loolu mënta nekk. dëgg la donte yàlla mën na lépp waaye taxul mu def lépp. te yent bi yàlla am na lu mu ko mayoon am na lu mu ko xañoon. dëgg kon loolu it day tax jaam bi bii ñaan yàlla mu xam ku muy ñaan. Euh, ñaan nag mooy escalier bu dox ci diggante nit ki ak borom. ndax dañuy wax ne nit làmmiñu jàmbur kenn mënu cee mooy yàlla. Uh-huh. ndax saw làmmiñ mën nga ci wax njuumte waaye làmmiñu keneen mënoo ci wax njuumte. kon kooku noonu moo gën a tinu pour man laa ñaanal. dañ koy wax ne néew sa bu faatoo boo ko dee ñaanal yàlla fi daaw bu néewoon ci jafe-jafe yàlla mën na ko ci jëlee. indi ko ci jàmm. Uh-huh. asuma laa koy dund. ni ma mënee am yaqin ne mën naa toog fii jàng ay ay saar ak ay mbir ñaan yàlla mu jéggal ko faatu noonu nga mën a amee yaqin ne mën ngaa ñu toog ci barab wér dal nit kurus aajoom fajum uh-huh. ñaan li man bari na tay ji mën ngay yutu dara ak kër nga diko jënd nga am jëg gi waye mëno ci jot nga dem nit ñaanal la nga jot ci. nga jot ci ngay wut place mëno ci jot nga dem ñaan nit ñaanal la nga jot ci. nga jot ci place ngay jaay dara ta jaar nga dem nit ñaanal la nga jot ci. Mm-hmm. kon loolu ay mbir la yo xamni ñaan yalla amul lu mënut. Mm-hmm. ba ci gi nek ci hôpital bi sax day am fu mu tollu dem ñaan yalla dem na li kat jafé jafé la bo xam ma ngi dem ñaan yalla pour defal ma ñaan pour poste bi ma ma nek ma ben poste. Mm-hmm. kon ñii ñaanlu moom ñoo gën lu, bëri ñi ñaanlu ko. ku naan la lu kenn waru ko def moy kon woro dem sakku ci yalla dara uh-huh. ndax yalla sax dafa bëgg nga di ñaan motax su tan dañe su ngeen ma ñaani ma may leen xeyna kon ñaan ak ak njibat dañu bokut sore comme yalla ak yalla rek uh-huh. ndax njabar moy di def lepp lo xam dañ ci genn yalla waaw te ñun liy ñaan yalla lañ koy ñaan kon kay uh-huh. ñun ñun sori nañ njabar njabar mom baat bi sax dafa dem ba dafa laté laté laté ba japp nañ li képp ku juk pour ñaan nak da ngay njabar njabar ñi ñaan ñi ëpp sori nañ njabar ñi ma ci xam ñi ma ci xam ñu bari lépp lu laal ak njabar dañoo sell di sellal di jub tey jubal. Uh-huh. mooyun yàlla defu ni tappale defu ni caaxaan lépp ci alquran ci lañ sukkandiku di ñaan. Uh-huh. njabar nag mooy di jël ay mbir rey xar te yàlla taxul jàpp ay ginaar di waree te yàlla taxul benn di jaamu ay xërëm wala di jaamu ay shayatin wala ay jinne ñu lay nga leen defloo ñuy def nga xam ne da nga naan lii carrément lii du yàlla lii ay mbiru njabar la su ma bëggee de am su ma bëggul day am. Mhm. loolu képp koy def moom daan ko soriwut ak kufur. dëgg la te njabar mooy troisième position ci bàkkaar yi gën a màgg. Mhm. bi bokkaale yàlla jàllee rey nit te tey ko bu ci toppaat mooy ak njabar kon njabar bàkkaar la ci bàkkaar yi kon képp ku koy def moom yaa ngi ci bàkkaar yi mag kon li ñuy def dafa wuute ak njabar sooy lépp ci alxuraan lañ koy sukkandiku. Mhm. kon yàlla la ñuy ñaan yàlla la ñuy jaam yàlla la ñuy topp loolu mooy li leer incha allahu rabbi amna solo serigne abdou khoudous sen borom ijaba borom firi yakarna suñu deglo ni nga waxe kon gis nañu ak sel ak ak selal sa lepp nga tek ko ci alquranul karim ci dara na genn alquran lepp mi ngi ci bir alquran xana kay mu melni man mana nelaw ba do geustu ba xam secret ci nek ak fañ ko dexeñ nga bañ fa egg mhm. waye dara alquran bàyyi ko dara itam gennu ci alquran mhm. ci alxuraanu karim mo wax loolu. Mhm. kon loolu amna solo. Mhm. waye suñu dikkee nak ci euh, kanam. den len présenté suñu garab yi nga xamanteni ngeen ko gis ni muy am solo. yo xamni xeyna dana yëngu ci walu faj hémorroïde waye itam bo xamanteni euh, dañ koy diw ci awrat ku bëgg mu reuy sama ah, ñen ñi nga xamanteni xeyna euh na awra dafa xawa gatt wala mu tuti ci ji am na ñoo xamante ni soxna yoo xam ni soxlawuñ côté boobu dañoo soxla koo xamante ni macha allah léppam day mat mm-hmm. kon nag am sëñ Abdou Khoudous indil na leen ko ñoom tamit bañ mën a gis seen bopp ba dund ci askan wi ba suñ génnee tam mën a firi mën a siggi ndax kër gi tam da cee am solo lool mm-hmm. ak yoo xamante ni néew kàttan itam am na ci mi ngi ñi ñu jàkkaar lool dañ ci ñëw ci présentation bi mm-hmm. ak yoo xamante ni jigéen ju taxaw mënul am doom traitement 78 443 75 27 yi ngeen di jokkoo ak ñun euh, fii ci pharmacie PA yi sëriñ Abdou Khoudous Sène borom ijaaba wuyu leen kon dañu ñëw ci benn tomb boo xamante ni dafa tas jamono fi mu toll nii ci yitteel askan wi. <laughs> léeg-léeg nga gis ñu ni góor def na ko jigéen léeg-léeg nga gis ñu ni jigéen def na ko góor muy li ñuy wax noob. <laughs> noob moom yan tegtal ngañ ci jox. ak hmm. kuñ ko def ndax mën nga koo dindi. ndax yow da ko def ak soo ko def ci yan nga koy defee. waaw jërëjëf sëñ Moussa ala kulli xaal yi euh, am maa lu aju ci mbirum nopp xëy na tomb la boo xam ne ñu bari léegi jël nañ ko ŋànk ko. Mm-hmm. di ko waxtaanee. noonu nag buñ ko waxee mooy def nit ki dara pour mu topp la ba du sañ a bañ. du sañ a bañ. loolu mook tasxiir daan ko sorewul. Mm-hmm. ñoom ñaar daan ko ñoo bokk ay mbir. lu mën a nekk la nag. luñ mën a def la lu mën a jàpp la yenn saa nga defal ko nit wala ñu koy defalaate sax. Mhm. defal ko nit mu dee jàpp. am na ci nit ñoo xam ne ñoo ci boppam defal leen dara sama sotti moo mënta nekk. moo mën nekk ndax li war ay bàkkaar yu ñu toggoo. Mhm. mooy yàlla gi bàkkaar yi seen yaram tilim. Mhm. kooku tey boo ko noobalee sax noof gi man na japp waaye yalla ci bop mo koy téye. mo koy téye. waaye na am nit ñoo xamné bakkar yi def buñ ko tuuboon suba suba seen biir ko seen biir ko wa na parce que bakkar yi day dem ba day tilimal ci yaram bi. Mm-hmm. tëj say buntu non dañ ma liggéey dañ ma def nang fekk kenn def la dara. noonu nak kiñ koy defal mooy ko xam da nga yor sa soxna wala yor sa borok kër. Mm-hmm. seen diggante neexoon ba ci yàgg ay nit dox ci ay jafe-jafe ba ngeen réeroo. Mm-hmm. bo ñëwee buñ la tégalé condition yi ba gëssu ko ba xamné lér leer na nañ la liggéey loo xam ne di ngeen jubuwaat ci jàmm. Mm-hmm. te kenn du indi jafe-jafe. dëgg la bisaat ko kun ko def tam ñu dindi ko loolu lañ koy dindi si saa si. dañ koy dindi ci saa si. loolu boo ñëwee dañ laa noot wala ñu déggoo ci foo mën di kaa nekk nañ la liggéey loo xam ne incha allah da nga yëg ne yow ki la nooboon nopp gi dañu. Mm-hmm. te duñ fi nekk naa la ay noobu 24 heures xam nga gars yi dañ naan la ay noobu 24 heures. noob sax noob une sax mën na nekk. mën na nekk ci kaw kii noob ak li muy noob ak ki muy noob. Mm-hmm. am na ñoom boo leen diiree ba ba ba jam leen boo diiree da ngay da ngay yem fa da ngay xam mooy kan ak ban waxtu nga koy ak ban heure ngay tàmbali ak ban heure am xam tabiya nit ki mooy kan. ak kii rawxaanam ban heure mm. ban heure lay toog ak xaatim bi ngay dagg xoddaam bi nga yebal. ndax ban heure ban heure la war a fekk waa ji. tey su ma mm-hmm. su ma daggee xaatim pour sëñ Moussa sëñ Moussa ma yebal ko Touba fekk sëñ Moussa kan laa lay jàppee. Ah, moom fa fekk de. Ah, léegi nag loolu mooy mbir mi. dama fekk Touba de damay xam sëñ Moussa ban waxtu la nekk. ak ban heure lay départ ak fan la jëm. ak bu mm-hmm. départ fan la jëmaat. ma ma gëstu loolu ba mu àggal ma diir ko sooy diir da ngay jàmm. Mm-hmm. sëñ Moussa yoroon numéro téléphone am yoroo crédit yoroo téléphone ma nag bëggoo foo ko jotee. foofu doo ma jot kay. loolu loolu mooy problème bi. Ah, waaw doxalee man ci sa laa <laughs> ngi ti yaa ngi Dakar. moom la wëree Touba. soo. léegi nag moo tax ñu bëri di am problème noob naa noob yi jàpp. Uh-huh. waaye fekkee ne def nga yi sart yi xam nga tamit xam nit ki ban heure ak ban waxtu. Mm-hmm. ak foo koy wër ak foo koy jàppee soo ko defee da nga ko jël am ñoo xam ne fi mm-hmm. guddi nga mën a jàpp mm-hmm. léegi yëpp ko xamul nag mm-hmm. da ngay liggéey ba sonn dara du sotti su dee tasxiir nag dégg naa nga tudd ko muy baat boo xamante ni tam man léeg-léeg nit ma damaa am ay milliardaires yoo xamante ni <laughs> samay xarit lañ wala dig nañ ma nangam war na yóbbu ma tukki wala war na maa def nangam te kooku daal sa ku ma dig rek ku mën a doon su ñëwee du ma ca am dama bëgg day mujj nekk ay nasaay kon tasxiir nit kon nit ki mën nga ko tasxiir ba mu mu mu defal toog defal nit ki lu mu ko lu mu ko bëgg te defal. tasxiir moom mooy daanaka moom noonu daanaka benn lañ rek mooy li nga bëgg ci Sëñ Moussa mu defal la ko bañ. te du bañ. su mbir mi jàllee day daal di day daal di yàqu. waaw ah, su day yàqu. daal day daal di jeex bokk tan noob noob mooy gën a hmm. mooy tey jii Moussa laa war a bëgg mu fa mu fas jox téeméer junni. Hmm. te xam naa ne am na ko man na ko waaye faw nga téye ci roq am na ñu koy hmm. liggéey ci Aliou Xànjar am ay yu ñu koy boole tafkir moom moo gën a yomb li yomb si bismillahi rahmaani rahim képp rek bu ci nit ki amee ak fatt doo ci toog 24 heures tax ci nit te jàpp mooy bëgg nit ki defal la dara sa coobareem te du bañ hmm. waaye su la ko joxee rek après ginnaaw bi nga lay xam ne kii di defoon na ma dara ba tax ma jox ko hmm. waaye nag am ñoo xam dañoo aar seen bopp nit ñi fi mu doon ku dëkk fi mu doon kenn du bàyyi sa bopp. kenn bàyyi sa bopp foo nga fexe ba ñagu ñagu ñag goo xam ne tas xëy rek lépp ci am mhm. waaye nag am dafa am anti antifreeze xam nga freeze ni mu amee di moo dugg sa machine ba yàq sa machine mhm. noonu nga amee antifreeze ba ku la déclenché nga xam ne kii dala déclenché ñoom fi ñëw am nañu anti anti anti corps yoo xam te ñu mhm. bëgg a sànni liggéey sax dañuy xam ne am na ku lay waaj benn ci nalaw mbaa njëkk Mm-hmm. léegi nag da xam yow tamit loolu tam kii tafsir day xam kan lay tafsir. Mm-hmm. am ñoom ñoo ëpp boobu boo leen tafsiree day këpp mm-hmm. liggéey am na ci yoo xam dañ koy liggéey yooyu kun ko liggéey ko defee bu waa ji jëw jéggul la day dee. loolu lépp moo lay xamal nit ki waroo bàyyi sa bopp. ndax jamono jamonoy kaaraange kon tasxiir lu am la lu mën a nekk la nag. incha allahu rabbi. dëgg la euh, ñu dem ci beneen tomb itam boo xamante ni man damaa jàpp ni euh, waxtaan dañoo war a dem ba suba far <laughs> ndax man bu ma laal xol ba ca tege. Mhm. japp ni boobu moo ëppati solo. Mhm. ndax léeg-léeg nga gis euh, ci mbiri lamb mhm. wala gis ab jankatu xasaay. wala gis ab waykat wala gis nitu public. nga gis ko xamanteni du am ñet nit. waaye. lamuy andal su joge fugu baag su waxe lamuy nexe ni ñaag yu mel euh day bari am ko xamne mo mbolo lay am lepp lay am. waaye dara dara su joge kenn du jog léegi lolu su fekke ci côté mo ci gatal moy ci walu bayre hmm. bayre ci khalis, hmm. wala tam bayre bo xamanteni hmm. dañ koy day yëm ci am mbolo wa bayre ne am na ay façon yu bari nak am na lu ñuy wax bayre jaay bok tak bayre place bok tak bayre mbolo bok tak bayre xaalis bok tak bayre jigen bok tak bayre bo ah. am na ci yo xam nak da ngay bolé ñaar yépp yooyu nag lu ci bëri ñu ngi koy liggéeyee ci yenn yi ci xeet rabi àll yi. ci misaal bukki. Mm-hmm. bukki fi mu doon ñëpp maasa nañ xam ne yaakaar naa fii ni wër ñëpp amul bukki. Mm-hmm. te foo tourné doo xëy soo ba ngoon déggoo ko te bukki. Mm-hmm. te yooyu mën nga koo jël am yoo ci booleel liggéey ko bay rek foo tëll foo tëll ni ñëpp ay jóg. ñëpp jóg. mais gis nga ci baas rek ni tey ñoon yii ñu naan diwa ngi ne. diwa nga ne. lu ci bëri foo ko fekk am na lum laal. am na noo xam nag xaas la ci suñu borom lay bàyyi ko. waaye bëriwut am ñoom dañoo jaamu yàlla ba yàlla def ci dugg nit ñi ne yàlla jaamu yàlla goo xam ne yàlla da mm-hmm. na ci yoo xam ne yooyu sangool am yoo xam ne yooyu takk la mm-hmm. am yoom tur nga koy liggéey bayre mbooloo moom li ci a gaaw mooy liggéey tur lu mm-hmm. barke bi mooy nekk ci yow foo dem mbooloo mi jug topp la dëgg la loolu lépp am na ci ay ñu ci siiw ñu baree bari koo ci fekk am na bayre yu ñu jëfandikoo ba tax nit ñi topp nit ñi topp ko nit ñi topp ci bëree bëri ndax parce que mm-hmm. yàlla lii tax yàlla def ci nit ñi ñoom déedéet ndax dëgg yàlla jaamuwun yàlla ragalun yàlla toppun yàlla mm-hmm. ba tax nit ñi di leen topp lu ci bëri lu ñu sangoo mbaa lu ñu takk mbaa lu ñu naan lay doon mm-hmm. loolu tamit dafa mën di ràññee boobu su ànd ak kaaraange mbaa dana baax ci nit ki kon bayre moom lu ci ëpp doos ko liggéey nit noonu te amul kaaraange bayre da ngay liggéey nit ki kaaraange nit ki da nga koy liggéey ubbee ba noppi liggéey ko kaan doo ko liggéey bayre moo tax lu jafe la nag da ngay liggéey nit ki mu ubbeeku ba ay mbiram di dox am na bayre yoom day tëj da tëj day tëj léegi nag da war a xam bayre bi dëppoo ak yow suñu musaa da xool xam ban bayre moo dëppoo moom mm-hmm. ak ban bis la war a jëfandikoo bayre bi ak yan la ko war a jëfandikoo boo koy liggéey da lay fay lu ko jar xam nga toog mm-hmm. ñaari bis fay téléphone ah. mm. kooku mooy Serigne Abdou Khoudous borom Ijaaba borom firi gént kon yaakaar naa ni mbokk yi. Mhm. déggante nañ lu am solo loo xamante ni bàyyi na ci moom ci wàllu mhm. bayre mhm. moo xam bayre jaay bayre place bayre xaalis bayre jigéen kon yaakaar naa ni ñëpp ko soxla fi mu toll nii waaye nag nee na du liggéeyal kenn bayre ca du ni nag daa ànd ak kaaraange goo xamante ni dalaa aar ba lu wax bari bari luy ñëw na ñëw na ja bari bari lu tàccu ya bari bari cat du ci am làmmeñ du ci am dar du ci am yoon mhm. kon ki mo wér mo wóor muy mhm. serigne abdou khodous borom mhm. ijaba serigne abdou khodous benen tombe bo xamanteni ni bëgg naa ñu ci ginnaaw buñ xamalé mbokk ñoo ngi fi ci pharmacie pia yi ci way euh muy walu tukki ndax dañoo gis ni gaar yaa ngi jeexal ndaw sénégal yi ak ndaw afrique yi ca pourtant yaakaar naa am na ku ñoo xam ne jiwoon ak seen borom ba soo ñëwee ñun damaa bëgg a tukki. Mhm. këyit laa bëgg soo demee ñu may la ko ak ku nekk foofu ci bitim réew sax tubaab yi lànk duñ la may ay këyit ndax seen ak caay-caay su boobaa ndax man nga ca dara. waaw tukki mu am nañ ci ay càngat sax. Mhm. càngat yoon tukki rek moo ko tax a jóg. comme da ngay wut këyit pour bëgg a tukki. Mhm. waaye nag ci kaw ñu xool sa mbir ndax yow tukki méngoo naa ak say mbir. ndax dëkk bi nga jëm baax na ci wala baaxut. ah euh, daa am ñoo xamante ni tukki gënul ci ñoom. ñoom tukki gënul ci ñoom. ak dëkk ba ñuy dem itam da ciy joué. da ciy ah. nit yàlla def na lépp ci kaw suuf. dëgg waaye dafa am lu méngoog say mbir. Mm-hmm. te yi am na ci ñoo xam ne seen wéradi wi àgg na foo xam ne mënutuñoo dëkk ci misaal Kaolack wala Touba. waaw fu nu mën a dëkk mooy Dakar. Dakar léegi kooku bu demee dëkk Dakar bu demee dëkk Touba bu dee donte yàlla ay rey waaye mooy rey boppam. Mm-hmm. ndax fi nga am na ci tawati bët yoo xam soo ko yoree dañu naan dama dëkk dëkk boobu dafa am mm-hmm. ñu bëri ñu ngi ñëw fii dëkk si fi ay médecins ñoo leen wax ni leen seeni i bët yi bu ngeen demee dëkk ci nekk dëkk boo xam dafa am environnement géej amaana seen bët yi jafe-jafe mën naa wàññeeku. ba tax du lëndëm. dëgg la léegi noonu la mel tamit ci tukki yow mii dem ban dëkk nga jëm am na ñoom tey jii seen biti na baax Sénégal ñu jógee fi dem biti réew seen lépp ne taxaw. lépp taxaw parce que lu ko war mooy ñooñu foofu gënut seen mbir ngi Sénégal mhm. li ñu liggéey Sénégal ba mën koo tukkee buñ ko kon ne mën am leneen. dëgg la léegi nag ku bàyyi loolu dem feneen da ngay am jafe-jafe. Mhm. ba da dem ba États-Unis sax du am dara. naan ñu Sénégal laa bëggaat. ndax parce que waral wartoon dem foofa. Mhm. am ñoom Burkina la seen wërsëg nekk. Mhm. yàlla ne sa wit mbir wërsëg Burkina 2021 boo fa demee sa bind day tàkk nga ne yàlla wane Burkina. Angleterre laa dem yàlla demal. nga dem Angleterre mbir dëgër. yëpp dëgër. lépp dëgër. xaalis bi dina romb gauche ak droite. doo am kayit ñu lay dàqee kat doo fa am dara foo nekk tey suba ñu dàq la di ko waral mooy seen mbir moo nekkut foofu. tey ji am ñoom seen mbir Sénégal la te jii boo ñëwee Sénégal da nekk Sénégal mën nga fi am teraanga nga baax fi noonu ne dee damay dem biti réew euro yi dafa bëri. waaw fekk ne yow say mbir waroo dem. ci CFA bi la. ci CFA bi la <laughs> léegi nag loolu nag moo am ci wàllu tukki da ngay nga koo tëj condition pour mën koo ñaanal pour su demee mbir dee sotti. Mm-hmm. am ñoom tukkul seen cër. Mm-hmm. léegi nag loolu foo nga xam ko ci nit ki nag doo ko jox càngat bi nga koy jox ci wàllu tukki bu koy def ci kàttanu suñu borom méngoog mbir ya yàlla na ci def tawféex dañ def tawféex tukki moom nekkul lu jafe ah. lu mën a nekk la waaye nag ci ngay ci ngay ci ngay tukki ci ngay liggéey tukki da ngay xam ban saa nit la mm-hmm. ak fan la fan la mbiram di gën a boyee jëm kanam dëgg la loolu tam da ci am incha allah. booy naar moom xam naa la a dem fii ak damaa bëgg a dem états a dem ah, ah, Allemagne mu ngi ko ni moom mu fekk euh, wërsëgu Allemagne ah, su fekkee wërsëgu waa ngi ci mu dox na toog Ndakaaru ci yëpp dox wala Sénégal moom mu dox daal dana am solo euh, ci beneen tomb mhm. boo xamee den tam euh, amati na solo mhm. ndax euh, damay faral wax toujours ma ni. Mhm. ñii gàmm ak ñii raas dem bokkuñ. Mhm. ñi ko man ak ñi koy jéem. dañoo bokkut. Mhm. kenn ku ci nekk mën a mën a joo gis du moom. waaye nag. kuy gis waaji la romb toujours ku romb nga ni du waaja waaja romb la ba jàll nga naa ndaka waaja fekk waaja la romb lay dem kon dëgg-dëgg kon mën nañoo xam ni kon lii nga ñu indi tey wax dëgg fa yàlla jafe na. Mhm. ak maandu. Mhm. ak ak ragal yàlla ak ak sàmmonte. Mhm. ab sëriñ bu koy bu la koy defal. loolu nag am na ci solo lool. kon nag su fekkee ci wàllu liggéey. ndax ndaw ñi bari nañu. bureau yi bari nañ soo seetloo jamono jii nguur gu bees ñëw na am na ku daanu ñi ngay wàcce ñee di yéegal ñee am ñoo xam ne ay diplôme lañ yor mun ñoo liggéey am ñoo xamante ne bii kayitu suukar sax amuñu ko ña nga ci bureau ya loolu lépp di ay jafe-jafe ndax loolu am nga ci solution. waaw wàllu liggéey tamit jafe-jafe la boo xam ñu bëri nga koy jànkoonteel. Mm-hmm. jafe-jafe yi benn ci kii wut liggéey lay doon. Mm-hmm. du ci toppaat jafe-jafe ci barab ba ñu wutee liggéey. barab ba ñu koy wutee. ndax euh, Sénégal fi mu doon nii dafa toll foo xam ne lu ñaan naan bras droit mooy doxal lépp. loxo bu gudd daal. waaw loxo bu gudd daal wala ak ñaan. bàyyi seen diw ma diw. waaw wala seen diw ma waaw yooyu daal bokk ci li waaye ak xam ak jub doxatut sëñ Moussa ngay xam. Mhm. mu ne xam naa booy naar nañ ko indi. waaw nga xam ma ne saa yi xam naa ko na ñëw. na ñëw sa yoon nekku ci mën naa mënut yow. Mhm. kon xamee la ñuy jiital waaye jiitaluñ xam-xam. dëgg la loolu nag bokk na ci li indi njuumte ba tax ñenn ñi di jàmbat jafe ci liggéey bureau boo dem da ngay fekk ci ay dossier kenn xamul nu mu toll. Mhm. ci média yeeg feneen ak feneen foo dem da ngay gis ñoom dañuy war a déposé ba ngoon jot ñu dem tëddi. ndeysaan. loolu li ko waral jafe-jafe la boobu jafe-jafe la boo xam ne du jafe-jafe ñaan jafe-jafe ay nit ña fa nekk la Mhm. benn bi ci toppaat tamit am nañu ñaan la ñoo xam dañoo dañoo kumte mooy yaram bu tëju. Mhm. yaram bu tëju daf leen a jàpp ba tax buñ déposé ci barab duñu am liggéey. Mhm. waaye ñooñu it buñ ñëwee da ngay xool seen mbir xool barab ba ñuy déposé ndax méngoo naa seen mbir. ndax du caagin li nga bëgg rek déedéet loolu tax ñu wax naan seet wala istixaar da ngay sàkkoo yàlla tànnal la li gën ci yow. gën ci mooy mbir mi tamit da ngay dem xoolee dem jarbu ko ci nit ko ku yàlla ragal yàlla mu xoolal la ci ne la ah barab bi de baax na waaye boo defee lii ak lii soo ko defee nañ la jël. waaw waaye bu caagi ne barab beekat fa jàng falaa war a déposé falaa war a liggéey. am xam ne yàlla na ñoom liñ jàng duñ ci liggéey. léegi yooyu tamit da koy xam ci boo ko xoolee wala nga li saxaar xaar nga xam ne kii lii muy sàkku nii du ci am ndam. Mm-hmm. nga ko demal xool leneen lii gënu ci yow. Mm-hmm. loolu tam bokk na ci li sonal ni waaye loolu tam boo boo ko xoolee ba génnale ko ay sarax defal ko ay ñaan incha allah rabbi bu méngoog bara boobu dañ ko jël dañ ko woo jël ko Mhm. am nañ ci ay cas yu bare bare da ngay xëy rek ñu la ah barab sàngam de woo nañ ma. woo nañ ma wala barab sàngam ka dama doon sàkk pour ñu fal ma fal nañ ma. fal nañ ma jeex na. Mhm. waaye ci kaw yoon bi ñu lay wax nga jaar fa rek. nga nu mu jaar jaar. waaw boo fa su dee sarax nga matale sarax yi yëpp. kay nga génne sarax yi. Mhm. ñu waroon wàllu ñaan gi ñu war liggéey ci wàllu kurus ñu liggéeyal la ko li ci des nag ñu bokk ci loxoy yàlla. nga xam ne lu gënee naan euh, yooyu yéen téye leen ci kaw. mën ma téye ci suuf. sëriñ bi day téye kurus gi. li def ñaanam. waaye yooyu tam sarax ya ci lan la ko waxee sangul nangam. nga defee noonu téye kurusam du nelaw guddi. ngir nekk say mbir. waaw yooyu yëpp boo koy da ngay def ci ku ko jar nag. ndax nit koy téyel kurus moom bàyyi sa yitte yëpp dootoo wuy téléphone mhm. loolu moo ko waral boo gisee yenn saa yi nit ñi di la woo di la jot loolu moo ko waral dëgg la ku la fay lu ko jar nga defal ko lu ko jar mhm. yàlla boo kenn ni nga ko toppee mu wërsëgaleel noonu kem ni nga ko moyee mu seetaane al moom loolu képp la kon mbir yooyu moom nekkul jafe ku jaar fi nga war a jaar rek am li nga bëgg incha euh, ci wàllu tëju. Mhm. léeg-léeg nga dégg ñii mhm. mhm. ñaari baat la yoo xamante ni tëjoog umu mën nga koo dindi. loolu moom am na ñoom sa du jar ñuy ñëw boo lay waxee li ñuy def buñ ko bàyyi tijjeeku sobe day tëj doomu aadama. sobe sobe. sobe day tëj sol yëre yu sobewu mm-hmm. baa nga sobewu ndax parce que ñu bëri ñu ngi naan dañuy jàpp ne sangu naa seet rek seet fekk am na ci yu yu des ci yow yoo xam ne mën na la jàpp mm-hmm. saw ci saw képp rek boo sawee na nga war a sawee defoo na nga ko defee loolu dalay topp day tëj seen mbir mm-hmm. bii di saat ay bàkkaar yu bëri day tëj nit moo tax nit ki su amee ay bàkkaar yu bëri yooyu moo ko yóbbu ñu ne yaram bi daa kumtiw dafa xaw nduroog cet bu dee ci jigéen ñi boo leen waxee boo gisee nangam ak nangam boo defee mbaax nangam ak nangam bi nga def mu war a say say mbir tëju bu dee ci góor ñi def nga nangam ak nangam soo ko bàyyee boo defee nangam ak nangam bu tëjee ko. ñooñu sax du jar nga ñëw bu leen neexee nag mën nga ñëw nga defal leen ay ñaan ñu ubbeeku waaye sobe moom mu ëpp lu muy tëj nit ak ay bàkkaar ba tax mbiram lépp ne kàkk dëgër su bàyyee bàkkaar yi bàyyi sobe rek mbiram tëjee ko léegi dafa wuteeg cat. càngaayul xaalis nag ndax am na. xaalis de am na waaye nag des koy liggéey nag. càngaayul xaalis. am loo ko sangoo <laughs> <laughs> léegi lan léegi bëri na bëri na gaa yi am na nag ah. am na ci juróom-ñaari sunguf yoo xam ne doo ko composé mukk sangoo ko lu rut jot xaalis loolu mënta nekk moom ah man de yooyu xanaa daa ko essayé <laughs> wallaay la azim am na juróom-ñaari non yooyu moom man maa jóge fii bëgg naa ko essayé <laughs> wallaay la azim nag loolu moom ah. témoin ndax parce que dama naan nangam balaa nga nangam day fekk yow mi koy def mu nekk ci yow ah. ndax parce que boo naan mën a mën a day fekk ñi ñëw ci yow gis ko ci yow mm-hmm. waaye wallaahi alxadim mu am na ci surug sungub yoom doo ko composé mu sangoo ko lu dangaa jot xaalis dangaa jot xaalis moom moom lu wér la waaye nag ci kaw ngay liggéey doo xëy tëdd sa a jot xaalis ah, du toog muy dox kon déedéet toog muy dox bu doon loolu kenn du liggéey mhm. waaye ci kaw ngay sabablu mooy tey jii dem dem yor sa place mhm. sëñ Moussa war laa jox xaalis nga nga comp nga comp sungub sangoo balaa nga xëy booy àgg sëñ Moussa laa saa war naa jox xaalis kat Mm-hmm. maa la koy dugalal léegi maa la koy dugalal loolu mooy tax ñu ne cangaay xaalis waaye du cangaay xaalis moom da ngay tëdd fi nga tëdd rek mm-hmm. di xaar kon kay yàlla jarut bu doon loolu kenn du jarut mii liggéey yàlla moo ne yor naa robinet yoo xam ne bu ko neexoon suba mi sotti ay béy xaalis dëgg la waaye loo gis dafa am sabab mm-hmm. sangaay li ko sangoo da ngay dem liggéey pour am xaalis waaye doo ko sangoo tëdd sa biir kër naan damay am xaalis fort fort ñun de amuñ kooku xëy na ko am nag amuñ kooku amuñu ko waaw kan jotaay baa ngi euh, yegg ci jeex mu mel kon am solo amati na solo la ñuy wax ndax euh, ni ma ko waxee Euh, loo gis rek. Mhm. nit ki da nga naa mënuma. Mhm. wala xamuma. Mhm. wala yëguma. waaye kenn yëgut kenn xamut kenn mënut. kenn amul sañ-sañ wax ko. ndax foo tëlee am na ku fa mane. foo mane am na ku fa tëlee. te Serigne Abdou Khoudous yi ñu waxtaanee yëpp. ay tomb la yu fasanti ko yoo xamante ni. moo xam ki ñàkk euh, bëgg ay këyit. Mm-hmm. nekk ci bitim réew. Mm-hmm. wala yow mi bëgg a tukki. Mm-hmm. yow mi am hémorroïde. yow mi yow mi yow mi li ñu wax lépp yow mi umu. yow mi bëgg a nopp sa sa jabar. ba mu topp la yam ci menam yow ak yow mi am soxna. ci bëgg koo mu yam ci menam yow kase yooyu yëpp ay taxawaay la yoo xamante ni. da koy def ci bu gaaw. listixaar nag amu ci moroom. firi gént champion la ci mhm. ñi fi fekkon ñepp ñu def mhm. laf na leen mhm. ndax taxaway ñu ñew ci garab yi nga xamanteni dang ko indi nak ngir dimbali askan bi bi soñ ko doon présenté mo tuddu nan sunguf bi ak lan moy njariñam waaw bu fekkente ne boobu nga téye noonu moom la ñuy wax fayaar ak fini grain lañ ko combo ak ay ay alxuraan boobu moom bu dee jigéen ju taxaw la jigéen ju taxaw. moom lay jëfandikoo. nga xamante ni dafa tëlee am doom. waaw dafa tëlee am wala mu amoon benn doom. Mhm. ngir mu amaat ñaareelu doom. jafe ko lool. waaw kay yooyu moom lañuy ñuy composé am yuñ ko booleel mu koy jëfandikoo traitement la bu ko defee yàlla mën na def tawfeex incha allah rabbi. Mhm. mën na cee jëlee ëmb. mën na cee jëlee ëmb. incha allah macha allah. boobu moom ci loolu rek lay dox. bu fekkee ne. ñaari lii pommade la wala. Mm, waaw yooyu de. <laughs> day dox ci ko xam awram da delu wala da tuti bëgg mu hmm na parce que am ñom dañuy japp seen awra di mballo mballoo ba delu wat mari di tali mballo bari na fi hmm feebar la ci feebar yi day dal goor day dal jigéen. Mhm. ay bu dé goor la moom dafa delu mom moom lañ koy tektal mu koy jëfandikoo. mba mbaa su nit ki mballo ba awra wi dellu. Mhm. mu diw ci lii. Mhm. mu yok mba du ko indil niw kàttan. déet du ko indil niw kàttan ndax parce que. dafa am ñaar la bii dafa am booy booy diw am booy naan. booy naan bii bu mu ci moom. bii mooy bu ñuy diw bi. bii bi ñuy diw. léegi am yeneen yu ñu composé moom ngay naan. Mhm. mu koy dekkal ci biir di ko dekkal ci biti. di ko dekkal ci biir. te doo ci am benn jafe-jafe muy saayir seeg baatin bi. waaw am benn jafe-jafe. te doo am benn jafe-jafe déedéet mu ko ci àdduna day dikkaat normal. Mhm. waaw loolu moom ci loolu lay dox. xaar ma am ku ma ko téyel. <laughs> su fekkee bii. boobu mooy hémorroïde. la. Mhm. Ah. hémorroïde moom moo xam bu nekk ci biir wala nekk ci biti. Hmm. moom da koy jëfandikoo. Hmm. di ko naan eh, chaque jour suba ak ngoon bu dee hémorroïde képp yàlla na dogal na tàqali ko moom. te moo ne suñu Abdou Khoudous hémorroïde day loo xamante ne day daa sonal askan wi daa hmm. léegi nag loolu tamit bëri nañu koy jàmbat. waaye ñu ci ñu bëri tamit suñu mosaan ñoo teg seen bopp jafe-jafe. Ah. ndax bépp tawat bu ne la nangam moo koy joxe. saa soo bàyyee tawat ji tawat ji moom dootul yokkati fa lay yem. waaye ñu bëri dañuy jël traitement hémorroïde ba noppi duñ bàyyi la hémorroïde di bañ. Ah. ñu ci bëri nag loolu tax ñuy wër naan damaa dem fu ne. Ah. hémorroïde day bañ pat. day bañ diwlin. Mm-hmm. day bañ yenn lekk yi nga xam ne dafa diis te baaxul si wàllu wér-gu-yaram. Mm-hmm. nga di ko lekk ba noppi bëgg di faju doo wér. ñu ci bëri nag boo déggee ñu lëfër lëfër lii kese moo ko saa yoo jëlee alcool def ci góom bi. waa ba góom bi waaj a kii nga jëlaat lañ set daggaat sa bopp daggaat waaye kañ ngay fi mu ne ñi ci bëri ñu naan dem naa fa ne wallaahi la hémorroïde yi peut-être bu ñu bàyyi woon saa si hémorroïde yëpp am nañ ci ay tegtal yoo xam ku ko jëfandikoo saa si day wér mhm. jaru sax ñëw bu la neexee jaru ñëw woo dañ naan la nangam boo boo composé ak nangam def ko hémorroïde day tane waaye ndax da bàyyi la ko indi waaw taxawaay bi yàgg sa lay joxe hémorroïde. garab de su fekkee da nga koy da nga koy da koy da koy koy su suhat, ko kii daggee pare suuxataat ko. Kau nga kañ lay sax itu. mu jóge fa. léegi nag loolu nag dal ñu bare yang ñu dem naa fu ne lañ leen tawat bu ne nangam moo sabab nga sabab tawat moom fa la yem moom léegi nga la koy tawat koy sabat ba nopi yow mënoo la sabat ba nopi di wër ay garab. di gas di ndax pax dana am. pën day bàyyi. waaw loolu nag looloo daal ñu bari nag koo dégg muy jàmbat waaye hémorroïde moo gën a yomb ay garab xay képp day faj hémorroïde. Mm-hmm. xay jël ko baxal ko ba mu bax ko ñaari di ko naan kaas ataay suba ngoon day rey hémorroïde bi ci ci biti. waa léegi est yow da nga bàyyi la ko indi. la koy indi. sëñ Abdou Khoudous Sène. Mm-hmm. borom ijaaba. Mm-hmm. ak firi gént. waaw traitement. <laughs> waaw boobu moom. ah jëm. Euh, ci wàllu néew kàttan lay dox. koo xam ne daa ngi sëy normal waaye da ngay yëg ni daal da ngay am jafe-jafe pour mën a dox normal. Ah. boobu boo ñëwee traitement boobu lañ la jox nga di ko jëfandikoo avant ngay tëdd. Mm-hmm. boobu tamit ku topp traitement bi yàlla dina dogal daal li nga ñàkkoon mën naa dikka te da yokk ay wallax njaan. waaw ah. ndax ñu bëri ñu ngi jàmbat ay problème am doom seen wallax njaan ñoo dee. Ah, léeg-léeg nga gis kon koo xamante ne dañuy jàpp ni góor jigéen nga la ndekete góor gën la. déedéet bëri na ci jafe-jafe am doom kay wallaay bu buñ ci génne woon góor ñi jigéen ñi bëriwul am na ñu bëri dañu am problème wallax njaan ndox situ bu nekk seen biir moo leen jàpp di ray seen wallax njaan su juddoo ci walax njaan su amul walax njaan amul doom du man wala njaan sama man ngay genn te fek na sandage bi am ko pour doom la jiddu wa puissance bi dal day dess wa day dess yoy nag goor ñi bu eh, mhm. ba goor ñi duñ def li walax wala njaan mel ni ndiir la baxé ci walax njaan ndox ko ko di nan naan la baxé ci ay wala njaan ak yeneen ak yeneen même jigen ñom da nga am problème trompe soy trompe bouger nga dem hôpital nga wut cepp diko nan day tax ba trompe yi da fat day fatas diko ba topi day waral bo sey di nga am do mhm. misa tamit trompeur bu la jappé moy tax bo sey say sa man yu tuuraat da nga gis ñew naan su sey ba sama wala sama wan bi di tuuraat ku góor ki di tuuraat sama bu wala mhm. loolu ko war moy fa mu war jaar la man da jaar ñu naan la rabal a fekk na yu bëri rabal ko koku cipp da koy fajj ku jël kel def ko ci biir di naan suba ngon day fajj day dem ba la faton day ko mhm. legi nak jafe jafé yi nak mo dal ñu bari ñu leen nax na leen ay rabal mono da nga léeg mëno am do fekk na mëna yalla donte bind na góor mënta am doom bënn na jigéen mënta am doom. waaye mhm. li ci ëpp ci nit ñi ay tawata lañ ko teg. taw yooyu nag bu gëstoo lu koy faj boo ko defee defee ba. kon mhm. lii mooy li nga xam ne am na ci mbir incha allah. jërëjëf. Mhm. ah man de bég naa. ci yaakaar naa booy naar ma jàkkaarloo itam <laughs> bég na. ndax dégg na tey loo xamante ni. xam-xam la. dégg nag maanu. dégg nag jub dégg nag sàmmonte. ak li muy def digganteem ak suñu borom subhanahu wa taala kon sëñ Abdou Khoudous borom ijaaba mhm. borom firi gént mhm. jërëjëfati mhm. ci occasion bi ñu may ñu mën a ñëw waxtaan ak askan wi ci xeeti jàngoro yi ñu waxtaane waaye tam ak xeeti suñu garab yu am solo yi nga xam ne mooy faj hémorroïde ak itam néew kàttan ak itam lu dellu yooyu am na solo kon lan ngay tàggoo ak mbokk yi ndax tàggoo la boo xamante ni. Mm-hmm. du tàggati ko. Mm-hmm. dañuy desiwaat ndax am na yeneen poñ yu war a waxtaane mm-hmm. waxtu bi moo xat rek. waaye am na leneen ak leneen ak leneen dañu war a waxtaanee ak mbokk yi. ci nit ñi di ko laaj ñu war a ñëw nga firil ñu ko faram fàcceel ñu ko. wax ñu yoon wa ñuy jaar ba loolu saafara. jërëjëf sëñ Moussa ala kulli xaali mm, ñu ngi sant yàlla bu baax di leen sant ci dawaay bi ngeen teew ci jotaay bi. Euh, di ñaan yàlla tànk yi ngeen dox ba egg si yàlla nekk yiw. di ñaan yàlla lépp loo xam ne wax na ko wax nañ ko fi daan na nekk njëriñ ci ñun ñu koy wax. amiin ak ñi nga xam ne ñoo koy déglu. dañuy wax nag lépp lu ñuy joxe ci garab wala càngat ci ñun la suñ bopp lañ koy tes mm-hmm. ndax da naan balaa ngaa jaay laax jaay da ngay laax lekk. laax lekk ko bari. wax dëgg yàlla tamit eh, donte amul lu ne gàññi gàññaaram waaye ak sant yàlla mu ngi am bu baax eh, yàllaa ngi def xéewal ba tax ku ñëw tamit bu lépp fajwut dana am loo xam dana faju mm-hmm. kon garab yi yëg yëpp lu ci nekk dañ koo jarbu jarbu ko bu mu wér xam ne lii day faj nangam lii nangam ak nangam ba noppi nag doo ko jox ay nit. Mm-hmm. ndax parce que doo du risque la ngay jox nit loo xam doo ko def. dëgg la kon nag nga koy njëkkee sa bopp moo tax yii yëpp dañ koo testé gëstu ko xam ne lu mën a nekk la ñu doog cee fas ne jaar pour jàppale ci ay nit. Mm-hmm. kon alaakulli xaalis ñu ngi leen di sant yàlla ñu ngi leen sant di sant yàlla bu baax. Euh, yàlla defal ñu feex bu baax ba bu ngeen dikkaat benn jotaay mu gën a nekk loo xam ne day gën a yaatu. Mm-hmm. ndax parce que jotaay bi am na solo. di ñaan yàlla defal leen jàmm defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëfati ba beneen jamono incha allah ci yeneen i tomb wasalaamaaleykum wa rahmatullah